ñu ngi bëggoon nag euh, nga ñëw ci li nga xamante ne moo te mooy baatu laa ilaha illallah dañuy faral di dégg ne dafa am secret secret laa ilaha illallah boobu nag. ak xam waaw <coughs> ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow it dëgg yàlla ndax question yi ànd na ak dal ànd na yar laaj ngeen laaj solo nag muy secret laa ilaha mooy laa ilaha illallah laa ilaha mooy mbuutu islam. mooy kalamatul xaq mooy miftaahul janna mooy kàddu gi nga xam ne mooy leeral xolub jaam mooy kàddu gi nga xam ne ci la suñu borom def surub islaam ba nga xam ne moom la joxoon bépp yonentam ci laa ilaha illallah rek nga dégg suñu borom ne jaamu leen ma ci laa ilaha illallah la suñu ne moom laa joxoon bépp yonent ci ñi jiitu yonent yàlla Muhammad ba ci yonent yàlla Muhammad ba pare ne leen jaamu leen ma ci fax ba doonii laa ilaha illallah lañ jox yonent yàlla Muhammad ne ko faxlam annahu laa ilaha illallah wastaghfir bi li zanbika damay faral di wax ne munoon nañ ko ne tuddal la ilaha illallah yam ci waaye waxuñu ko ko dañ ne ko faxlam annahu laa ilaha illallah ana moo tax ñu ne ko faxlam annahu laa ilaha illallah xamal lañ ko wax xamal la ilaha maanaam dafa am lu ñuy xam ci biir mooy li nga wax daa am sirru laa ilaha du yem ci kàddu rek nga tudd ko yem ca waaye da ngay fexee xam sirru ba ca ne ndax sirru boobu mooy mbóotu islaam te ku mu tàbbi ci mucc nga fii mucc fañ jëm laa ilaha illallah mooy goreel ab jaam te ku ko yor mucc nga waaye ku ko yor mucc nga sëñ Tuubaa ci la daan defaree lu ñuy wax Cheikh Rafal ba mu ñëwee ci sëñ Tuubaa ne topp tànk yàlla ba si ngay tànkoon ma yàlla loo ko sëñ Tuubaa jox daf ko dina la jox soxna suñ dul fase fii ak fañ jëm mu ne ko ndem dana ma àggale ci yàlla bëgg naa mu ne ko bis naka tey dinaa la jox laa ilaaha illallaah soxna la soo ko fase fii ak fañ jëm dañ koy dëkkoo koy woddu te dañ koy dundal Sharafal dëkkoo laa ilaaha illallaah ci làmmiñam ci xelam ak ci xolam di dundal laa ilaaha foo xam ne leer na ko ne bu fa taalee laa ilaaha la dund Sharafal samp fa laa ilaaha illallaah góor ñi di ko si kar Cheikh Fall fexe wodd laa ilaha illallah ba kenn du xas laa ilaha laa jaare ko ci moom laa ilaha laa googu la ñuy la Cheikh bi Murabbi di yëkkati di jox jàmm ndax ci lañuy ñuy sellalee jàmm ba mu set laa ilaha illallah mooy raxas xolub jàmm bi tabbal ko boroomam mooy caabi àjjana damay faral di wax ne nag caabi la boo xam ne saa à double revers bu tijjee buntu àjjana mooy tëj na buntu safara waaye bu tijjiwul buntu àjjana mooy tijji na buntu safara. képp ku jotul laa ilaaha illallah xam ne yaa ngi tijji sa buntu safara jamono jooju waaye képp ku jot baatub laa ilaaha illallah ak sa kër ba ndax Sëriñ Tuubaa daf ne kullu man zakaraha mustahida man muunaha daxala jannata xadan képp ku koy secret xam secret ba mu làmbool daagul dugg fas ko sa dënn daagul dugg àjjana xam ne mooy sa kër ki xam ne nag kon moo koy secret te yor maanaa ba lañ soxla ki xam ne nag da koy tudd dégg rek góor yàlla yi di ko tudd dégg na Cheikh Rafal daan na ko tudd ci la daan defaroo ndax dañ ne ko jàpp ci baatub laa ilaaha illallah ca ngay raw nga dégg ne góor yàlla yi moom lañ daan sikar rek nga di ko tudd di ko sikar yaa ngi mel ni ku dégg ne paracétamol dana faj naan paracétamol paracétamol teew ci woo paracétamol doo ci mos a faju kon laa ilaaha illallaah nga koy jëli ji ci ku am ci ku ci am ndigal ku ci mel ni Cheikh Souleymane Niane nga xam ne am na ci ndigal te mën na cee jëriñ ci am ba yooyu mu jox la laa ilaaha nga di ko boo demee ba mate sëkk mu àggal la ci mbuut ma sëñ Tuubaa lu mu wax du axfal yan siran mosun laay xubban laa mbootu laa ilaha illallah mbootu sirub islam tigi tigi tigi tigi mu ngi jeex ci laa ilaha illallah kon loolooy maanaa laa ilaha illallah laa ilaha illallah maanaam kullu yonent ko mos a wàcc ci kaw suuf soxna Maada laa ilaha illallah lañ la jox ngir nga ñëw jox ko sa ñoñ mooy nga dàq lépp saxal kan yàlla te képp tànk dàq ko lépp saxal yàlla xamal ne amagoo tawhid te tànk tawhid toogagul ci yow xamal ne munoo goo jaamu yàlla lu yàlla nangu ci tawhid la ñuy yalla ci tawhid nga saxé ci salatan daayiman fi dawani mulkila té tawhid gogou yang koy amé ci nga dak, lepp saxal yalla baatub la ilaha illallah day dak yow dañ fi juggé xalam bi juggé fi suuf ci juggé ci lepp lo xamné ne ko doon gis di ko diko di ko bëgg mu nekk fi sax ci soxol la ilaha illallah da koy far saxal kan allahu la nga dak ilaha dara nekk lan mo nekk ñu allahu yalla bu boba nang nga mëna julli mu nang nga mën a woor mu nangu nga mën a nat aska mu nangu nga mën a aji màkk mu nangu nga mën a tëdd di nelaw mu nangu waaye tànk sur boobu toogul ci yow a def dara ba baax te sëriñ boo àkki nag ci kaw suuf te joxut la baatub laa la illallah lazi laa ilaha illallah lay nax ndax nit ki mënoo koo jox islam te joxoo ko laa lan la ñuy seede bu ñu dugg ci baa ci islam ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasul maa ngi seede ne dara nekkul lu dul yàlla maa ngi jégalu soxna Maada maa ngi seede ne dara nekkul lu dul yàlla te seede googu suñu borom daf ne wa maa shahid naa ilaa bi maa naa damay faral di wax ne lu dul yàlla yàlla lisi laa ilaha illallah yoro islaam waaw léegi nag mi ngi des ci ñiy seetaan ndax ñoom bëgg nañoo doon yàlla yàlla wala bañ nañoo doon yàlla yàlla bu ñu bëggee doon yàlla yàlla danañ dugg am nañ islam bu ñu bëggul doon yàlla yàlla duñ dugg waaye lan mooy yàlla yàlla yàlla mooy ki nga xam ne moom moo seede ashadu an laa ilaha illallah ci taaruf ci xam-xam wa ma shahidna illa ma alimna suñu borom def ne shahida allah annahu laa yàlla shahida allah annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist moom yàlla seede na laa ilaha illallah ñett kon ñoo ko seede moom yàlla malaaka ak ulul xilmi ku bokkul ci ñett ñuy seede woo te nit ñi buñ ñuy wax duñu ay malaaka te kenn du yàlla ki moo ñu fees. kon ñan kenn moo ci des mooy ulul xilm ku ci bokkul rek seede oo te yàllaa ko wax nee na ñetti kuréel yi ñoo seede. shaydallah no la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul xilmi xaaki iman bil kisti la ilaha illa huwa al kon ñetti ñi ñoo seede léegi nag ñi nga xam ne ñoo seede mooy ñi nga xam ne gindeeku nañ ci laa seen seede daal di biir mooy lan li nga dàq daf laa leer da nga ne dara nekkut ana lan moo nekk nga ne yàlla ci naka nga gis ko sa bopp ne man nekkut ma asamaan si nekkut suuf si nekkut ngelaw li nekkut dara nekkut lu nekk ñu ne yàlla aaya dëggalal ne la wax nga dëgg ndax suñu borom moo ne la alam tara anallah yusabihu lahu ma fi samawati ma fil ardi aaya bi lu la wax pourtant aaya bi mënoon na la wax xanaa déggoo wala xanaa yow mais aaya bi def na la xanaa gisoo alam tara anallah man yàlla loxo maa fi wat maa fi addi man yàlla man la ñuy sàbbal diggante ak suuf kon ki seede na dara nekk lu dut yàlla gis na yàlla ci asamaan si gis na yàlla ci suuf si gis na ni lépp di yàlla lépp di sàbbaale yàlla moo tax suñu borom ne alam tara xanaa gisoo kooku nag moo toog ci tawhid kooku moo toog ci lépp lu mu jënoo muy suñu borom kooku la sëriñ Tuubaa ne muy ab murit moo tax suñu borom sëriñ ne fa kullu man raasi wallahi aat fi ay shay in fa huwa murtadin caxat bépp bët bu xool bépp mbir bam daj te gisul boromam boobu la bët murtat na génn diine ana la moo tax mu génn diine mooy dafa gisul boromam bi nga xam ne daf ne moo daj fépp dafa gisul boromam bi nga xam ne moom kese moo fi ne lu ñuy wax lixlaas dañ ne mooy carte d'identité lan yàlla buñ ko dee buñ ko dee misaal xul waxal xul laaxu dara moom yàlla dara ne moom kese fi nekk axadun allahu moom yàlla allahu biñ lay gindi ci laa ilaha laa samat moo daj saal bi moo daj foo tourné loo war a gis du saal bi allahu bu dee mooy samat foo tourné loo war a gis du allahu allahu samat lam yëlet wala mu yëlet mais bu fekkee moo daj kon nekkoon doo fi ak dara ba ba di ko jur wala mu koy jur moom kese fi nekk daj bu fi nekkoon doo woon bu doon samatul bu doon moom dajul parti bi bi manqué mën nañ ne foofu lu la fa nekk moo ko jur wala looloo ko jur mais li daj kooku dara des fa loo xam ne mën nañ ne looloo ko jur wala moom moo jur loolu mu tax mu ne lam yelit walam yulat walam yekk loxo ku fa axat te ak lenn lu lu koy dérange ci nguuram gi parce que axadun la siru boobu nag yaa ngi koy fekk ci laa ilaha illallah ndax dangaa dàq da nga ne dàq naa lépp nga moo des nga ne allahu moom yàlla ah, moo tax nag jamono jooju ngay soogaam tawhid léegi nag yaa ngi soog dugg ci islam islam taslam yaa ngi soog a am jàmm tant que nag duggagoo ci islaam mënagoo julli lu yàlla nangu mënagoo woor lu yàlla nangu mënagoo nag askan lu yàlla nangu moo tax suñu borom nañu lan tanaanal bir raataatun fi maa tuhibbuuna boobu jaam yi seetantaluñ ko ndax buñ ko seetantaloon dinañ xam ne suñ borom def nañu du ma leen nangul daray baax julli du lu baax koor du lu baax nat aska du lu baax mais dalaa tegal conditionnel bi tax mu ne la du ma la nangul daray baax ndaree dang ma jébbal li nga gëna bëgg sa bop wa glace bu delloo ci ya ndox ya ya, lu muy doon ndox fo jugee ci yalla bo delloo ci yalla lu fay dess yalla fay dess légui nak yow bo delloo ci yalla bo jébbalee sa bop yalla yaa ngi soog a ci yalla jamono joju nak mbax nga defoon suñu borom soko validé mo tax nit mën ta def mbax ak ko mëna doon bu dee gëm nañ alcorane ko mëna doon mëno def mbaax loolu da nga jébal sa bop yalla te loolu Cheikh Moussa moo ko yor jamono jii ñuy waxee ki mën a dimbali jàmm ba mu jot boppam ci yàlla Cheikh Moussa la fi mu doon ci jamono ndax mooy wan jàmm bi yàlla ci boppam wan jàmm bi yàlla ci xaalam bi moo la koy wan ci mboolem loo janool te jaare ko ci baatu laa ilaha illallah kon jërëjëf Cheikh Cheikh Moussa waaye jaral ak Cheikh Souleymane Niane mi nga xam ne moo dimbali ba ñu jotee ko. jaam ñi dañoo yaakaar ni islam lu yomb la islam yombul yomb na yombul ndax tey nga daje ku la àggale ci yàlla yombul yomb na ndax boo xasee ba daje ku la àggale ci yàlla lu yomb mu tëmbal la ci islam jëbalul aslamtu nafs lillahi rabbil alamin suñu yenn mbokk yi dañuy jum ne la jëbal naa sama bopp àddina ak àllaaxira aay bi naa la sama bopp ngir jëm yàlla aslamtu aslamtu li nafsi lillahi lillahi rabbil alamin jébbal naa sama bopp ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne rabbul mooy borom alamin yow foo bokk bokkoo ci xaal bi waaye da ngaa ci li nga bokk léegi soo fee nag moom mu jël la commencé laa defal la nga xam ne moom la yonent bi waxoon way zakkikum commencé laa sellal ba nga set mu xamal la way xale mu kumal kitaab téere boobu nag dëgg-dëgg téere bi du téere saayar bi تيرب ساير بي موم لا لاي تكتلات الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين واي خال مكو مو الكتاب بوبو نك موي مو جانغال الف لام ميم الف لام ميم گندو لا تيرلا بوي دوخ بو توي خيب نام ني بيس بو نيك اي دي گنا دغو دي گنا دوخ